mbokk jërë ngeen jëf mbokk internet yi sport live 221 xibaar jëm ci wàllu tàggat yaram ak sunu lamb ak atu yéenekaay bi sunu lamb diggante Modou Lo Ama Baldé ak assurance bi ñu ci joxe Amadou Ba promesse ba mu defal promoteur yi Ada Fass Zoss dinañu ci ñëw wala taaloolee ba tey ci xët mu njëkk atu yéenekaay boobu di sunu lamb wax nag jëm ci Babacar Diop mi nga xam ne moo di président bu CRG bu Thiès ñoom nag nee na toutes les actions seront toutes les sanctions seront levées donc loolu mooy kàddu yi nga xam ne yëgit na ko ngir di ay leeral ci li nga xam ne moom la jiite muy CRG bu foofe ca vainqueur de Mama Lamine nag ni ki démb moom goro Sock daal daal dinay euh, renaître de ses cendres gannaaw boo xam ne am na ndam ci digganteem ak ki nga xamante ni moo di euh, Mama Lamine Zalba nag yëgit ay kàddu moom ñëw ci lamb ji nga xam ne des koo xaarandi ci diggante le 8 octobre diggante ki nga xam ne moo di ak Ada moom nag nee na Ada Fass n'a pas droit à l'erreur te Zoss tamit dafa nekk ab mbër boo xam ne mbër bu imprévisible la kon nag mu nekk lamb joo xam ne mënees na caa xaar euh, jongante diggante Ada ak Zoss sos en tout cas moom Zalba nee nag Ada mooy erreur lamb joojee des ca war a ba mu jeex Zoss nag dafa nekk mbër boo xam ne mbër bu imprévisible la bu naxadee natt nan lay ñëwee la diggante Modou Lo ak Ama Baldé nag ak coow la moom daal ki nga xam ne moo di commandant Thioune daal dina joxe ay assurance di xam ne ne lamb jooju mel bu ñu ci yeggee ak jàmm dinañu jël toutes les dispositions et ce combat la ko xam le moom mi ne nga xam ne moo di commandant Thioune financement promoteur yi nag moom Amadou Ba mi nga xam ne nag jamono jile moom la ñu gàddu lu jëm ci wàllu tàggat ci ndodam gannaaw démission bu Yankhoba Diattara euh, moom nag mu ngi promettre daal lu toll ci un milliard de francs CFA ñi nga xam ne ñoo di promoteur yi jëm ci seen financement ci atum deux mille vingt quatre waaye nag loole des xaarandi ba xam moom mille présidentielle yi ñu dëgmal des ci amee ndam wala déet en tout cas mu nekk promesse boo xam ne defal na ko di prometteur yi lu jëm ci un milliard de francs CFA nag ngir li nga xam ne moo di seeni financement jërë ngeen jëf mbokk internet yi li moo doon xibaar yi tàggat yaram ci bile vidéo dig daje beneen yoon yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci àllande la tàllale wala di laa ki ci seen seen sport live 221 ku dee gan ci page bi te abonné njëkk a jël cant ak ngërëm ñeen leen quatorze régions du Sénégal fa leen mënte nekk diaspora bi kenn mu ngeen des jërë ngeen jëf léegi léegi ñu indi yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon jërë ngeen jëf